Now, the teams on board the Ocean Thinking rescue ship chartered by SOS Mediterranean in partnership with Mercedes Sans Frontiers, MSF, have rescued 162 people in two challenging operations. After the medical evacuation of a woman, her infant child and her sisters over the weekend, the remaining 159 survivors disembarked in Taranto, Italy earlier this week, providing them a place of safety in a timely manner in accordance with maritime law and those rescued on the brink of tragedy get to spend Christmas in safety. A total of 162 people, including 50 minors and 5 pregnant women, were rescued by the SOS Mediterranean Search and Rescue Team in two critical rescue in international waters off the coast of Libya on Friday, December 20th. The first rescue started in complete darkness around 5 a.m. in international waters, 34 nautical miles off the Libyan coast when an overcrowded rubber boat reported in uh, distress during the night was finally spotted from the bridge of the ozone Venkin. The bow of the uh, was entirely I was entirely deflated upon the arrival of SOS Mediterranean rescuers. The people on the boat, among them seven babies, were terrified. Eventually, all 112 men, women, and children were brought to safety on board the Ocean Viking. Soon after this forced rescue, Soon after the forced rescue, the Ocean Viking was alerted to another distress case by citizen aircraft uh, manned by Sea Watch, and after eight hours of searching, the wooden boat in distress was spotted. Since the boat entered the Maltese search and rescue region, the rescue was conducted under the effective con coordination of the Maltese authorities, 50 people were rescued in complete darkness around 11 p.m. in dire weather and sea conditions. According to uh, Nicola Stella, SOS Mediterranean Search and Rescue Coordinator, who was on board the Ocean Vinkin, said both rescues are Oh, we uh, performed last Friday were extremely difficult as the weather was rapidly and severely deteriorating. Both cases would almost certainly have resulted in tragedies if help had not arrived only a little later. Mr. Stella Ficho stated that the wooden boat was very likely to uh, capsize and the rescue took place close to Lampedusa, <coughs> where two ship crashes occurred very recently. The rubber boat carrying 112 people without life jackets could have completely deflated as the bow was already collapsed when we arrived on scene, saying that all the all their team were shocked after such horrific sights and exhausting operations. Well, that's the end of the third um, story, of course, a very serious one again. The issue of um, you know illegal migration continues. It seems as if it's it's going to be an over, a never-ending issue, I, I, should say, and then. Um, challenges continues to, to happen uh, Limum moom again ma'am ji Agul uh, ak jul de wax nañ ko waxati and will come back to the same issue again uh, affaire li nga xamante ne mooy jaar si ndox bi dem ci Europe ñi li nga xamante ne operations yu ñu def ñaari opposition yu critical uh, yu yu dangerous yu waroon yu waroon tax ñu ñaka tamit um, lives yu bari ci li nga xamantene moy li aju ci jaar ci ndox bi uh, ci Méditerranée bi dem Europe briskina uh, lu ne mu ngi ci wax ne ko waxati ko kili you know authorities ñu ngi def lu ka tamit ak ñeneen organizations pour fight lolu why people are still persistent ñu ngi insist ñu ngi dem with the risk with all that mu nekk li nga xamantene moy lu doy war seen after li lan mooy seen seen réaction ak seen jàngat ci li nga xamante ne mooy si histoire bi. moom euh, balaa ñun sax ñi ci wax bëri na te nit ñi dañuy wax ba sonn mënuñoo am saafara ci lii defe naa ne luy dàkkal dem tukki yoonu ginnaaw yi bu jeex. dina bokk ci suñ nguur yi ak autorités yëpp ñi bàyyi xel ndaw ñi ndaw ñi di am fu ñuy xayee ndaw ñi di am koom-koom bu nga xam ne seen xel sax du nekk ci xememteem bu dem bitim réew leneen tamit ñu yombal ko mooy euh, ku mel ni Abdou Guité daf ko wéy ne ñin suñu bëggee dem ñu mel ni ñu ñuy mbugal te deewagunu ñoom suñu bëggee ñëw mu yomb lool loolu tamit lu ñu war a xool la bu fekkee dem bi moo jafee ba doomi african si yu bari di ñak seen bakken ci dem ci yoonu ginaaw yi nan yombal dem bi kuy dem nga jaarale ko ci yoon dem bo deme yegg ci jàmm ak salam bo fa deme luy sa wërseuk budé da nga japp ne dabbi ko mo lay dem ñom dem japp lo ne dem bobu lañ bëggul mhm. parce que buñ ko yombalé tamit ñu bëgg ñëpp so gisé ñu bëgg dem lool moy problème bi fokk ñu xamné ak luñ ko jafel jafel faaw ñi bëgg dem doon doomi african di ñi dem dem on a saan nga yow kenn musta xalaat ne gaal dina jóge baara fii ne da ngay utali Spain waaw loolu yëpp xalaat la ci nit ñi am mébéti naka la ñuy demee Libya lañ doon wax ñi dem ba foog ne loolu jeex na nit ñi di xalaat baara jóge fa Morocco déggoon nañ ko fi ak yeneen ak yeneen saa yu ñu demee ba tëj place bi di nga gis doomi africain yi dinañ xalaat feneen fu ñuy demee. waaye ba jàppoon na yëf yi mu ngi gën a gën a gën a doy gën a gën soo demee ba xale yi. Mhm. xale yi nga xamante ne ay ay ay liir lañ ñuy cee bokk jigéen ñu biir. waaw you know loolu Amadou foog nga understand ne xale yi moomuñ seen bopp seen jur yàlla ni yóbbu. waaw loolu la waaye ñuy eh, dem di yóbbaay xale yooyu kay. moo tax may wax bu fekkee fi ñu nekk seen dara sottiwul te li koy sottal mooy ñu am luñ lekk am luñ naan ñu ci bëri dem ci yoon yi boo xamoon ci naka lañ dundee ba yegg ci bërëb yooyu noonu da ngay xam ne buñ fi nekkee sax yërëm leen dañuy jàpp ne dem xaru ci àll bi moo leen gënal loolu yëpp nag li koy saafara mooy nan def pexe ndaw yi di xëy nan def pexe ndaw lu am. as su nga xam ne bu dee yoon la yombal ko mooy tax nga dem ñi yombalal la sa yoon nga dem nekk ci afiya loolu rek mooy saafara bi Amadou bëri na ñuy jóge fële di ñëw fii nekk ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ay tubaab ñoom seen bopp soo demee seen réew ñu ci bëri xëyuñ gontuñ waaye suñ bëggee ñëw dafay yomb dañ leen jox access bi nañ jox access bi african si itam ñi bëgg a dem ñi dem si num yombee that's the only solution lu mun a saafara li waaye without that every time di nga dégg yoon yu ñuy génn yu ees doomi africain yi di dem te ñoom ñoo fay dee Julde um, well maam ji bi lu mu wax nii yëpp you know uh, comme ni mu ko waxee wax nañ ko waxati ko and all that waaye beneen affaire bi mooy euh, wax na léegi léegi baara ñu gis xale yi jigéen yi léegi euh, ñoom sax am nañ dat yi noo nga am fit dugga ci ndox ku mel ni kon man man moom ñemewuma ko lu moo tax man waaju ma sax ji jaar ay ndox di dem xam naa maam bi tamit foog naa ma daf koo xalaataat euh? waaye xale jigéen yi buñ demee ba di ko ñemee def waaye yëpp si jigéen ñu biir nga biir ba diis wala nga am doom bu ndaw liir nga yóbbaale ko ci ndox loolu di am loolu tamit loolu tamit leneen la de leneen la kay ah? te man The doy war be pare ndeysaan te daw yaram. ba pare soo demee ba it's another thing. It's another issue. Huh? Um, nobody gives you the guarantee ne so fa demee di am a job quickly or di am a home to live so the nekk loo xam ne dafa daw yaram torop uh, mu doy um, these are the things that will happen So then, like people are hopeless and they don't have jobs to. Um, pour jobs, creating jobs. And the government, I think they should be proactive in, in terms of their policies, in terms of the, the way they are handling things in, when it comes to migration. Because migration, dafa nekk loo xam ne is the greatest dilemma in Africa. you know suñ ndaw yi ñu bari faatu nañ si um, géej yi ñu ñene xale lañ soo gisee yaay moom mu jël doomam bu ndaw liir xamul dara mu ko yóbbu si lii bi ten xam nga ne foofu jaama nekkut fa de soo dafa hmm. nekk loo xam ne dafa doy waar trop um, I think government be African governments because Gambia is not an exception to this illegal migration thing. Definitely. So Gambia government be particularly should you know create create avenues for youngsters. You have to create employment for them. Pour ñu mëna uh, venture into business and then you stay in the country Why don't you stay in the country fekk amuñ jobs This nañ ne recently um, standard newspaper buñ publish ne um, yaay bi dafa threaten mu ne moom dafa commit dafa haru. doomam bi suñ ko déporté because doomam Germany la nekkoon. so te te loolu sax dëggu Mali bëggoon naa see wax sax comme indi nga ko may euh, ci loolu ba léegi ñi nga xamante ci ci ci indiwaat ñooñu. Euh, ñi nga xamante ne mooy European si ñu ngi European yi ñu ngi wan su fekkee ne Gambia sa bañ na loolu am dañoo dinaay ñi nga xamante ne mooy euh, visa ñoom visa restrictions te loolu gis nañ ne expert bu ko fi wax like Gambia su dee ne dinaay nañ to repatriate those people wow. back you deny you know visa restrictions to Gambians which I think they have nga lu nekk daal use diplomacy because this is international politics it's it's about international stuff so Gambia is involved so man I think the best thing to do is to you know collaborate with these people the two governments and see how best they can come up with a solution because deporting these people is not a solution they are already desperate they are already traumatized maybe they can even you know involve in illegal acts they do illegal acts to me, you know sometimes they will get in trouble and who are affected is us because this we have seen 60% eh, or more of the population are youngsters. So if the youngsters are involving in something that is illegal, mm. lolo no dafa affect the economy and you know dafa affect the society. Right. So man, the best thing is. Mm-hmm. I don't really think deportation is the best thing to do. I don't really think that migration, illegal migration is the best thing to do. Okay. But then you cannot stop someone from going if you don't create avenues for the present. Very so well. Uh, very well. Um, whilst we are you know, talking, my highlight through my mind, that if, is there anything lu ñu mun a def ba ba ndaw yi toog because in other way around maa ngi xalaat ndax mindset la di mentality fii boo demoon Europe doo ko mun a meeg you know uh, loolu tam am na ñu bëri ñu ngi koo gom nag mooy ñi nga xamante ne tamit we have to be loyal to each other and gis nga fii yàgg nañ koo wax juróom-ñaari taax juróomi ñi ko tabax nekkuñ fi loolu nañu waxante dëgg rek waaw ñu ngi bitim réew lan moo waral loolu ñi fi nekk dangay xëy di gont liggéey ñaari liggéey ñett li ngay liggéey bu weer dee balaa weer bi di taxawaat li nga liggéeyoon ne ko faxas. yëpp faxas na on nga kon loolu foog ñu understand ne. tey <laughs> li <laughs> faxas de. waaw foog foog ñu waxante dëgg bi yeneen doon wax léegi léegi affaire déportation boobu ñuy wax. loolu du solution tey du solution ëllëg. man li ma jàpp ne. mooy taxawaay bi nguur gi war a def ndax loolu suñ nguur yi yàgg nañ fi mu suñ koo dégg. li ko indi nañ dem ci reen bi ñu luxati ko ñu saafara loola xale yi fa nekk ñu toog bu dee bu dee dafa am ñu fa nekk mu leer la ne ñooña nañ fa nekkee mu àndul ak luwaay réew boobu noonu ñi teg leen ci yoon wan leen ne leen nit ak foo mënti nekk danga war a doxee sartay réew moomu noonu loolu mooy li luwaa nangu nga nek fi nga nek ci bitim rew li am solo rek moy fa nga nek doxel ak sartay rew mom nonu mu mengo ak ñom seen bëgg-bëgg ba do indil fitna keneen ki nga xamne sax sa nawle la ta mom lambul lalu ci yefi benen bi moy fokk ñu understand african country si, wala sun african leaders yi dañ wala jël responsibility responsibility moy saa yuñ soxla ñi sanni leen carte dafa am digge yu bari yu ñi yu ñi dekk te digge yoyu ku ci tok ba falu fatte nga li ñi naxe lay doon. waaw naka ngay saafaraa yëfi ñu bari seen xalaat du ci nekk tey wax naa ko ci njël ci ci ci ndorteef bi mooy Amadou. wallahi billahi laa la wax bu fekkoon dañ jafel tubaab yi fiy ñëw ni ñun suñ dem ni mu jafee. konoon dinañ respecté ñi fay dem. loolu tubaab yi suñ lépp ñoom ñoo ko yor. maam ji bul fàtte loolu waaw foog ñi xam ne yow boor yi ñoo am lu ñoo doxalee lu ñoo développement si tabax yooyu yëpp ñoom ñoo koo jox. mais xanaa gëmatuñ ne xanaa gëmatuñ ne ñoom la ñu yore sunu borom dafa am lu nga xam ne daf leen ko sédd te ñin ñii yàlla mooy def saa yu amadu yeewoo li mu war a lekk suba ba ngoon balaa jant bi di soo boo ko ñàkkee sax jullee dina la ko jox. loolu ah, foog ñu loolu gëm gëm boobu boobu moom. non mais mais ñu delloo suñu bopp ci imaan. gëm gëm loolu moom loolu moom am na. Mhm. waaye with all that. yow yow li ngay wax nii yow xam ne ci beneen boor bi tamit am na loo fi wax léegi ne. Mhm. comme par exemple ina soo gisee rombee benn juróomi taax. ah ñe tey wala ñeente ñëw fi tabat nekkuñ fii. su fekkee tamit nag gëm-gëm boobu am na mental bi mooy foog boobu foofu. loolu ah, su fekkee ne loolu am na. gis balaa ngaa mën a tabax taax wala dawal moto bu rafet wala am sa kër you know ah, ak ak yooyu fokk nga tukki. Amadou li tax ma wax la loolu ak lekk ak dunda bi sax. laa li tax ma wax la loolu li tax ma mm. wax la loolu. ifin kër yu bëri fii tey boo fa demee. ñu yore seen dund yi bu dee juróom la ba tey dama lay dellul de ñett yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi dañ dem ci biti ut luy tax ñu garanti fii ñi dellu si toog ci dëkk bi liggéey. waaw est-ce que nag léegi buñ ñu fa tolloo dana jàll yoon eh, ni tamit góom ne. Mm. affaire soo sooyee yàlla mooy indi li ngay def. non xam nga li tax ma wax la loolu mooy ah, dama ne dalee ko ci suñ <laughs> njiit yi. ñoom ñi nga xam ne ñoom la yàlla jël. palasor bi ñu téye ko ci seen loxo ñun ñëpp ñu nekk ci seen ron. bu taw ñëwee ñu ñàkk tawtee on sàn nga ñooñu laa la ne ñoom ñoo war a dajaloo ci seen biir ñi xam ne am na lu ñuy war te dañu war a jël responsibility responsibility bi mooy jël luwaay yi firndel ne suñ doom yi ñu ngi dem fa ñuy dem dafa am lu ñuy uuti fi nekk nii dafa am lu ñàkk lan moo leen ko war a may ñi saafara ko bu dee dem la nañ yombal dem bi bu dee toog fi la nañ ubbi bunt yi nga xam ne ki fi toog lii tax muy toog fi dina mën a saafara ajom loolu laa la wax ma ne la moo tax faaw ñu delloo suñu xel ci suñu borom am gëm-gëmu imaan ne ci gëm ne bu demee mooy tax mu am na keneen am gëm-gëmu ne ki fi toog mun naa toog mu am waaw di fek defuñ lolu safara du musa am ta naw lo gis mu nek fi bu fi nekke jéem jéem jéem jéem ba sonn dara soti wul xalaatam moy dem ndax gis na moromam yi dem am nan ta dem rek taxula am am na ñuy tukki ñu am kii moo te soo gisee sa maam ji bi duguma la um, recently dañ gis ne like um, remittance moo nekk xaalis bu diaspora bi di andi fii si si Gambia bi da ngaa gis ne ñu ngi contribute more than 22 percent 22 uh, percent to our economy soo gisee loolu ne like sectors like tourism yëpp uh, moom moo leen ëpp so remittance dafa nekk loo xam ne dafa important torop te um, suñ uh, diaspora and si also they are very they are contributing to the economy so man dama tane la lu nekk exactly lu nekk solution bi daal bi involve young people in decision making in create job opportunities for young people they will stay make them important feel wanted and important in their own country why Sudan you make them like feel useless and then hopeless of course they will go to other countries and then ñu ñu def lu leen. ok <laughs> dinañ ci di dinañ ci dinañ ci saafara waxtaanee ci lu bare bëri ndax li tax ñu wax loolu rek da ngay xool tey euh, nit day nekk fii nga yore ndékkim añam reeram bu la fi romboo dem ñaari at ñaari at ñett kooku noonu mun naa ñëw nga dégg jënd na kër jënd na oto yow loo ko doon jox dina ko dabul pour jox la ko.